jàngoroy Covid 19 gi tolluwaay gi ci diggante Touba ak Mbàkke ñi fiy gën di nemmeeku nag ñoo xam ne jot na noo amee jàngoroy Covid 19 gi loole tax na askan wi itam ku ci nekk di ci joxe sa xalaat ci tolluwaayu jàngoro ji ak lu jëm ci wàllu ko moytu geek matuwaay yi ci war a jëlee sëriñ bi moom jàpp ne bu dee lu jëm ci wàllu ko masque yi askan wi ñu ngi koy respecté waaye mu mel ni am na geneen fànn goo xam ne itam ak bàyyeeku da cee am. waaye tamit am oto yi kon Màggal Touba yi distance bi ñuy jël ko hmm. jëluñu ko boo xoolee tout le temps chaque jour ñoo ngi dajaloo si oto yi hmm. ah hmm. kon yooyu yëpp tamit euh, préfet waroon na see dox ay jéego ak euh, Euh, police yi. Mhm. ñu xool ni a lu ko soriwul dara keneen jàpp ne moom jamono ji donte jafe-jafe yi nga xam ne jot naa am ci jàngoroy Covid 19 ci diggante Touba ak Mbacké askan wi bu dee nag lu jëm ci wàllu gi moom muy xamle ne foofee bokk na ci mbir yi nga xam ne itam fa la desee ndax am na ci ñoo xam ne ba léegi ñi ngi wëy di amal boobale. jàngoro ji moom lu la waaye man di wax mbas la mbas day am. yàlla noonu ba muy tukkal àdduna bi juróomi moo ci desoon ba mu àdduna bi ñu demaat noonu Moussa na jëf bu dee lu jëm ci wàllug masque yi ñu ngi koy respecté makkaanu jëwriñ ji toppatoo lu jëm ci wàllug wér-gi-yaram am na yeneen yu dul masque yi yoo xam ne askan wi wax nañ cee bàyyi xel effectivement parce que tamit bu ñu mayewul distance yi jël ñu suñu matuwaay tamit euh, day gën a indi ay problème mhm. day gën a indi ay problème te mhm. dañuy ñaan yàlla suñu borom feebar bi jóge fi mhm. te kenn ku ne nekk sa activité oh, non non dajaloo moom am na am na gaa boo fa parce que biir Touba yu bari boo ñëwee fii si dajaloo mais masque yi moom respecté nañ ko en plus que tamit joxe loxo bi tamit ñu ngi koy éviter. Mhm. sérieusement parler. Mhm. waaw parce euh, damay génn di xool. Mhm. mais damay gis dañuy éviter joxe loxo yi. mais jataay yi daal. Ah. lañ éviter wul diggante Touba ak Mbacké dem bekk dikk bi li ñu ko fi ku bari lool. bu dee nag lu soxal jàngoro jekk taxawaay bi nga xam ne moom lañ ci war a amee ñenn ci askan wi itam di gën ñaax ñu bàyyi xel jàngoro jekk tolluwaay gi ak ni nga xam ne noonu lay lawee ci réewum Sénégal. comprendre ma expliqué. Mhm. ñu loolu dañu ñëw si des. Mhm. ñu ñooy jël suñu matuwaay kenn ku nekk euh, xam li sa wareef nga def ko. Mhm. parce que ñun ñëpp euh, ñoo mën a jàppale réew mi ah ñoo mën a jàppale tamit président Macky Sall. ñun tamit ñoo mën a jàppale tamit suñu bopp.